mu ne ma xam nga yow da ngay dof doflu mais xàmmee nga mu baax mën na ko tonton aussi ma waxaat ko mën na ko